wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala di jullitee sëlmal ci suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi am mbégte ñëwaat ci li nga xam ne mooy dars bi nga xam ne moom lañ doon def mu aju woon ci aqidatu ahli sunnati wal jamaa bu cheikh muhammad ibnu salih al usaymin ñu tàmbali woon ko ci séminaire u sifa 2022 mu desoon ñaar wala ñetti cours incha allah ñu war ko àggale ak mbokk yi ci ay cours yoo xam ne en direct lay nekk fii ci li nga xam ni moom mooy canal bi nga xam ne mooy canalu Fiyad via YouTube incha allahu taala kon bunt bi nga xam ne tey moom la ñuy dugg mooy lu aju ci li nga xam ne mooy mandargay bés penc mooy juróom benn juróom benneelu ponk bi wala juróomeelu ponk ci ponki ngëm arkaanul iman mooy alyawmul axir mu ne faslun bunt la wa nu'minu bil yawmil axir bunt bii ñun liñ ci gëm mooy dañuy gëm ne gëm nañ bés penc ne am na wa yawmul qiyaama te mooy bésu taxawaay ba alis bi nga xam ne laa yawma baadahu bés amul gannaawam xiina yubaasu naasu ahyaan nit ñi dañ leen dekkal ñu daal di dundaat lil baqaa ñoo dundaat goo xam ne nag dañ fay des foofa amatul dee imma fi daari naim suwaa ñi nekk ci këru xéewal ga muy ajjana yàlla ñu ci yàlla boole wa imma fi wa imma fi daari l adabi l alim wala ñu nekk ci këru mbugal gu métti ga muy safara yàlla ñu ci yàlla musal fa numinu bil baasi te gëm nañ dekki am na dekki am na ñu koy weddi mais mooy borom xel yu yàqu yi ak ñi nga xam ni ñoom dañ leen a bind rek pour lu ñëw ñu weddi mais ku gis ni yàlla bindee doomu aadama ak fi mu ko jaarale bu la waxee dina la dekkal nga war ko gëm wa ihyaau llahi taala al mawta te mooy suñu boroom day dekkal ñi nga xam ni ñooy ñi dee ñooy ñi dee xiina yanfuxu israfilu fi suur an nafaqa athaniya mooy malaika bii di israfil bu ëfee ci buftu ba ñaareelu ëf bi ëf bu njëkk bi ci la nit ñi faatu aduna tukki ñaareel bi ci la doomu aadama yi dekki li koy wane moo li boroom bi subhanahu wa taala wax ni wa nufixa fi suuri fa saiqa man fi samawati wa man fi l ardi illa man sha allah mu ne su malaayika bi ëffee ci li nga xam ne mooy buftu bi mu ne su boobaa mu daa di dee daa di faatu mboolem lu nekk ci asamaan ak suuf lu dul ko soob sa sa borom ku soob yàlla thumma nufixa fiihi uxraa mu ne ah suñu daa di ëffaat beneen bi fa iza hum qiyaamun yanzurun di ñëpp dekki toog di xoole ñu war leen a atte fa yaqumu nnaasu min quburihim li rabbil alamin ni ñu génn ci seen bàmmeel yi ah daal di génn ci seen bàmmeel yi jëm fi ñu leen di àttee war a taxaw ci kanam borom bi subhanahu wa taala xufaatan ñu def li nga xam ne mooy bila niaal tànku neen duñ sol dàll xuraatan yaramu neen bila siyaab kenn du sol yére bila xitaan xurlan bila xitaan nit ñu nekk sax li nga xam ne mooy xaraf giñ jële woon ci yow day delluwaat ci yow parce que da ngay melaat ni la yàlla bindee woon ci cosaan yàlla mu ne kama badaana awala xalqin nuiidu comme niñ la bindee woon noonu lay delloowee comme niñ bin niñ niñ bindee woon nit ñi niñ bindee woon créature yi noonu lañ la di delloowee waa waadan alayna inna kunna faailin yàlla mu ne loolu dañ koo diggoon suñu bopp dig la bu ñu defoon boo xam dañ koo diggante woon ak yéen te luñ dig dañ koy def wa nu'minu bi saxaifi l amal mu ne dañoo gëm li nga xam ne mooy téere yi nga xam ne moom lañ jox nit ñi kenn ku nekk sa téere nekk sa loxo tuqta bil yamin ñoo xam dañuy jox seen téere ndeyjoor aw min warai zuhurihim amin wara i zuhur bi shimal wala ñu joxe leen ko seen ginnaaw ci li nga xam ne mooy seen loxo càmmoñ mu ne fa amma man utiya kitaabahu bi yamini yàlla mu ne am na ñoo xam ne bu ñu leen joxee seen téere seen loxo ndeyjoor fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira ñun de dañ leen atte atte bu yomb wa yanqalibu ila ahli masrura mu daw delluwaat ci aw nitam ci ay mbokkam kontaan lool bég wa amma man utiya kitaabahu waraa zahri ki nga xam ne ñu ko jox téereem nag ci ginnaawam fa sawfa yad'u subura kooku dina yuuxu di woote ay musiba wa yasla saira dina lakk ca safara wa borom bi daal di waxaat wa kulla insanin alzamnaahu tairahu fi unuqi nit ku nekk dañ koy wékkal li nga xam ni mooy téeréem dañ koy wékkal téeréem ci li nga xam ne mooy baatam mu ni wa nuxruj lahu yowma alqiyamati kitaaban yalqaahu mansura yowma alqiyama bi taxawee ñu nekk koo xam ne nag dañ koy jox téeréem nga xam ni da koy jàngal boppam iqra kitaabak jàngalal si jàngal sa téere bi kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba doy na sax yow yaa àtte sa bopp wa nu'minu gëm nañ bil mawazin li nga xam ne mooy balance yi ñuy teg jëf yi tuudaw yawmal qiyaama dañ koy teg yawmal qiyaama fala tuzlamu nafsun shay'a yàlla du tooñ benn bakkan dara fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara képp koo xam ne def na lu baax lu toll ni pepp suuf dina ko gis wa man yaamal mithqaala darratin charan yara ku def lu bon lu toll ni pepp atom di nga ko gis yàlla mu ne fa man saqulat mawazinu képp koo xam ne diis na ay balance am fala yakun muflihun ñoom ñoo ñu taxe wa man xaffat mawazinu képp koo xam ne diis na mawazinuhu li nga xam ne oyof na li nga xam ne mooy balance am fa ulaika allazina xasiru anfusahum ñoo ñi nga xam ne dañoo perte li nga xam ne mooy seen bopp fii jahannama xaalidun jahannama la ñuy sax yàlla mun talfax wujuhahum naar seen kanam yi dafay lakk ca safara sa wa hum fiha kaalihuun waaw ñu fay ñor man jaa bil xasanati falahu ashru amthaliha ku indi lu baax yàlla dina ko fay lu toll ni fukk yu baax wa man jaa bi sayya ku indi lu bon fala yujza illa mislaha yàlla du ko fay lu dul lu mel ni bu bon boobu mu indi wa hum laa yuzlamuun te kenn du leen tooñ wa numinu bi shafaa gëm nañ li nga xam ne mooy intercession ba mooy rammu ga rammu al uzma bu mag ba li rasulillahi ñeel yonente bi salaa sallam xaasatan surtout nag yashfau inda allahi taala bi izni nga xam ne fa lay rammoo ca kanamu yàlla ci ndigalal yàlla li yaqdiya bayna ibaadi pour yàlla atte diggante jaam yi xiina yusibuhum moment bi nga xam ne daf leen di dal min alhammi wal karb ci tiit ak jaaxle maa laa yutiquun loo xam ne nit ñi duñ ko attan fa yazhabuna ila adam ñi dañ dekk yowmal xiyam tiit jaaxle situation bi dépassé leen doomu aadama miinul gis façon bu mel nii nit li mu miinoon a gis ci wàllu jugement fii ci tribunal yi ñu lay taxaw nga nekk à l'aise jàpp ne mën ngaa lijjanti mën ngaa def corruption mën ngaa fexe ba génn ci yowmal xiyam nga dekk gis jinne yi gis malaayika yi gis climat bi tàngooru naaj bi kenn xamul foo jëm kenn talul kenn situation bu doomu aadama yi dañuy jaaxle nekk ci situation bu difficile nekk ci benn stress mental nekk ci benn pression ñu jaaxle seen yàlla yàlla def ci seen xel ñu ne aadama moom la yàlla njëkk a bind mooy cosaan xëy na ku dem waxtaan ak suñu maam aadama mee taxaw fekk dañuy gis aadama xàmmee ko amaana aadama dana mën dara ci situation bi parce que mooy suñu maam bu ñu demee ci aadam aadama ne leen yii sama bopp laa tal dem leen seeti nuux ba xam ñëw ci nuux nuux ne leen sama bopp laa tal daa am lu ma war a lijjanti ak sama nit dem leen seeti ibrahim ñëwut ibrahim mu ne leen am naa am naa sama lu ma tal parce que man dama am ñetti fen yoo xam ni daanaka dama ko defoon ci àdduna ma war koo lijjanteeg yàlla mooy bi mu ne yàlla ju mag ji moo moo toj xërëm bi ak bi mu ne ndaw sim àndaloon au lieu que mu ne sama jabar la mu ne sama sœur la ak bi bi gaa ñi dem di feeti ji mu ne damaa feebar mu ni damaa feebar loolu lépp nag borom xam-xam yi fexe nañ ba wañe ne Ibrahim daf ko jàppee ay fen waaye du fen Ibrahim ne leen dem ne damaa tal sama bopp laatal ñu dem ci Moussa Moussa ne leen sama bopp laatal fekkoon naa ñaar ñuy xeex ñaar ñuy xeex ma atte ma lay atte kenn ki xatara bu ma ko mu daanu mu daal di dee xaw ma ndax dañ ma koy laajam déet dem leen seeti Isa ñëw ci Isa mu ne dama am compte may réglé sama nit parce que dañ maa dañ maa def yàlla dinaa ma fi jóge dem leen seeti waa jële taxaw dikk yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi ne li ngeen doon seet ci Adama jaar ci Nuux Ibrahim Moussa Isa ci man la ko yàlla def yonente bi alayhi salaam foofu lay demee sëgg ci kanamu arsh yàlla ne ko siggil laajal ma jox la loo loo loo loo ñaan ma may la yonente bi alayhi salaam ne ko lenn rek laa bëgg mooy nga gaawal àtte bi jaam yi xam fu ñu féete loolu la ñu tuddee ashafaatul uzma mooy intercession bu mag bi ramm gu màgg gi kooku kenn la ko yàlla jox mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy ashafaatul uzma mu ni hatta tantahi ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam ba nit ñi daal di àgg ci yonente bi fa la ñuy jeexalee ci moom wa numinu bi shafaa gëm nañ aussi ramm fi man yadxulu naar ñi nga xam ne dañuy dugg safara xam nga yowmal qiyaam am na ay julit ñoo xam ne bu yàlla àttee jaam yi ay nit julit ñu newoon ci l'islam mais dañoo tàbb ci ay bàkkaar léegi ñoom dañuy ta dañuy tàbbi safara dañ leen di juge ñu dem safara mais fekk na dañoo deewaale tawxid tawxid googu ñu deewaale moo leen di sauver parce que ku deewaale bokkaale doon ta julli nga moom mënatoo dem àjjana doon ta julli nga mais ñooñu dañuy faatu fekk am na ay bàkkaar yu ñu def dañoo tooñoon fii lépp fii fayuñu yàlla juge leen yooyu ñu tàbbi safara am lu leen jot a lakk suñu borom sontara def ñu ramm rel bu leen yonent bi alayhi salaam rammoo ci la leen di génnee safara yóbbu leen àjjana bu ñu leen yóbbu àjjana ñu daal di fay nekk loolu mooy bokk na ci rambu yi nga xam ne mu ne ñun ahlu sunna dañ koo gëm an yaxruju minha wa hiya li nabi sallallahu alayhi wasallam boobu yonente bi alayhi salaam leen di rambu wa ghayrihi min annabiyin am na ñeneen ñu dul yonent yi rambu ay nit yu génn safara yu dul yonente bi ñu dugg àjjana mu ne wal muminin wal malaika am na ñeneen julit ñu baax ñoo xam ne duñu ay yonent yàlla dafa leen di may ñu rambu ay nit ñu génn safara dem àjjana ñooñu kañ la kan la koo ci tudd turam rek wax lu amut parce que yàlla waxul diw ak diw la yàlla moo leen xam kan ak kan la kenn xamu leen yow mën nga cee bokk man mën naa ci bokk kenn mën na ci bokk yàlla rek a xam kon ñooñu du ay nit ñoo xam ne dañ leen di catégoriser ne diw wala diw la daa am dëkk booy dëkk wala réew mooy bokk wala sant booy yore wala daa am nooy mel déedéet ay nit ñu baax lañ en tout cas nitu tawxid yoo xam ne nitu tawxid nag la ñu doon ñoo xam ne faatu nañ ñoom dem àjjana yàlla may leen ne leen may naa leen ngeen ramm ay nit ba génne leen safa dugal leen àjjana malaayika yi malaayika yi suñu borom subhanahu wa taala daf leen di may ñu ramm yàlla génne ay nit àjjana dugal leen safara mais alquran sax day ramm baqara surtout baqara day ramm ak ali imran comme ni ko yonente bi alayhi salatu salaam waxee dañuy ramm ay nit ne yàlla kii maa ko teree woon nelaw daf ma doon jàng guddeeg bëccëg daf ma daan jëfe weer koor ci boppam koor dafay ramm yonente bi alayhi salaam nee na koor day ramm yowmal qiyam koor suñu borom da koy jox ndigal mu daal di ramm kon yi ramm bëri na loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mu ni wa bi anna allah wa bi anna allah taala yuxriju min annaar aqwaman min almuminin sunu borom dina génn ay nit safara ñoo xam ne ñu gëm yàlla lañ bi xëyri shafaa te kenn du leen ramm bi fadlihi ci mbaaxam wa rahmat yi ak yërmandeem su ko defee ñoom ñu yaa dem tàbbi àjjana ñooñu ñooy mujjee génn safara dem àjjana waa àjjana tudde leen aljahannami yoon moo ñu jógee jahannama tàbbi ci safara mbokk yi wa numinu bi xawdi rasul rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gëm nañ yonent bi dexam léegi dexu yonent bi bokkut ak kawsar bu dee xadis yi xawdu moo ci ñëw bu dee alxuraan kawsar moo ci ñëw mooy inna ataynaaka al kawsar ñun yàlla ñoo dox kawsar kawsar dex la mais ndax mooy xawdu bam dañ borom xam-xam yi wute ci ñi ne mooy xawdu kawsar mooy xawdu ñi ne xawdu mooy kawsar ñi ne déedéet am na différence effectivement am na différence parce que kawsar moo rot ci alxuraan xawdu moo rot ci xadis yi moo tax borom xam-xam yi dëgg xadis yi comme ibnu abbas dinañu moom asar mooy wane ne kawsar mooy alimenté xawdu c'est-à-dire kawsar moo gën a mag mooy alimenté dexu yonent bi dafa mel ni xawdu lak la lak lak léegi kawsar nekk fleuve xam nga fleuve moo gën a mag léegi fleuve bee alimenté lak bi kon kawsar mooy alimenté li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy dexu yonent bi alayhi salatu salaam dex googu yonent bi alayhi salaam nee na moo gën a weex soow moo gën a neex lem ah li nga xam ne mooy ndab yiñ koy naanee muy verre yi kaas yi nee na toll na ni biddeewu asamaan yi ci ci ci ci bëriwaay ak ci rafetaay ci ci biriyee ci biriyee loolu mooy alayhi salaatu salaam li nga xam ni moom la melal mbokk yi dex googu ku nekk ci war a naan yàlla nañu yàlla boole ci ñu ci naan yonent bi alayhi salaam dafa wax ne ku ci naan dootoo mar ku ci naan dootoo mar te yomal qiyaam jaam yi suñ dekki ak tàngoor bi digóor a génn ci bàmmeel nit ñi dañuy ànd ak mar gu jéggi dayo ñaq sonn yonent bi alayhi salaam mu ne dexam googu ku ci naan dootoo mar te naan ci nag dafa am ay melokaan lañ yàlla boole ci ñi nga xam ne dañ ci naan mu ni kon wanu umam bi xawdi rasul gëm nañ dexu yonente bi sallallahu alayhi wasallam maa uhu ndox mi ndoxam ashaddu moo gën a moo gën a tar bayaadan weexaay min al laban ci sow wa ahla min al asal moo gën a neex lem wa atyab min raihatil misk moo gën a neex xet gu li nga xam ne mooy odeur odeuru parfum bi ñuy wax misk tuuluhu guddaayam soo ko doon dox shahrun un mois nga koy dox wa arduhu largeur bi soo ko doon dox shahrun nga koy dox kon loo ci déggee mooy carré la carré parce que longueur bi ak largeur bi ñoo tolloo mu ni wa aniyatuhu ka nujumi sama mu ni ndab yiñ koy naanee verre ya dafa mel ni biddéew asamaan xusnan ci rafet wa kasratan ak ci bëriwaay yariduhul muminuun dana fa dikk ñi gëm yàlla min ummati yi ci xeetu yonente bi ah man chère min ku fa naan lam yezma bada zalika dootoo dootoo mar ba faw sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain mbokk yi kon dañuy continuer rek fi nga xam ni fa lañ taxawoon ginnaaw biñ gisee xawdu yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy dexam gi mu ne wa numinu bi siraat gëm nañ li nga xam ni moom mooy balance yi nga xam ne almansuub ala jahannam nga xam dañ koo lal ci kaw jahannam yamuru naasu alayhi ala qadri amalihim jaam yi dañ ci dañ koy romb ak li nga xam ne seeni jëf nam toll fa yamuru awalum kal barq ñu njëkk romb mel ni ko melax summa kamara réex ñi ci tege mel ni ngelaw summa kamari tayri ñi ci mel ñi ci ñi ci des mel ni picc buy naaw wa ashaddi rijal ñi des mel ni ay nit ñuy waaxu di dox wa nabi sallallahu alayhi wasallam qaimun ala sirat yonente bi alayhi sallam mi ngi taxaw ci kaw siraat yaqul di wax naan yaa rabbi sallim sallim loolu lay ñaan yow sama borom muccalal muccalal sama jaam yi wala sama muccalal muccalal sama sama nit ñi nga xam ne ñoo ma topp mu ni hatta ta hatta tajuza amalul ibad fa yaati man yazxof mu dema dem ba li nga xam ne mooy doomu aadama yi di tële seen jëf di gën a néew am ñu ñëw ñoo xam ne dañuy raam mun wa fi xaafata yi siraati kalalibun muallaqa te ci catu yoonu siraat bi dafa am ay këfukaay yoo xam ni dañ ko faa wékk maamura an taqusa man umirat bi dañ koy day këf képp kuñ ko jox ndigal mu këf ko mu ne fa maxduushun naajin wa mukardasun fi naar am na koo xam ni kalaali bi yooyu daañ ko laal waaye day rëcc dem bu mu kar dasun fi naar am na ñoo xam ne nag daf leen di jël tàbbaleen safara wa nu'min bi kulli ma jaa fi lkitaabi wa sunna dañuy gëm lépp lu rot jóge ci ñëw rot jóge ci alquran ak sunna min axbaari zalika al yowm li nettali lay xew ci bés booba dañ koy gëm parce que alquran ak sunna rek moo ñu mën a nettali dafay xew wa ahwaalihi aana aanana allahu alayha ak ay li nga xam ne mooy phénomène yu raglu yi fay am mbir yu raglu yu màgg ya fay am yàlla ñu ci yàlla dimbali wa numinu bi shafaati nabi gëm nañ rammug yonente bi salaa sallam li ahli jannati wa ajjana an yadxuluha ñu dugg fa wa hiya li nabi salaa sallam xaas boobu yonente bi alayhi salatu wasalaam la ko yàlla jagleel wa numinu bil jannati wan naar gëm nañ ne àjjana kër gu am la wan naar safara kër gu am la te ñaar yëpp yàlla mi ngi ko préparé ay jaamam àjjana wax ne uiddat lil muttaqin safara wax ne uiddat lil kafirin fal jannatu daaru naim àjjana mooy këru xéewal alati nga xam ne aaddaha allah taala yàlla mi ngi ko préparé jaamam yi lil muminina al muttaqin ñi gëm yàlla te ragal yàlla fiiha min an naimi àjjana nekk na fa ci ay xéewal maa la aynun raat lu bës mësta lu bët mësta gis loo xam ne bët mësukaa gis amul benn bët bu ko gis wala usnun samiat nopp mësukaa dégg wala xatara ala qalbi bashar xolu nit mosu koo xalaat wala xelam mosul tàbbi ci xolu nit yàlla nee na falaa taalamu nafsum ma uxfiya lahum min qurati ayunin jazaan bi ma kaanu yaamaluun amul benn bakkan bu xam lu ko yàlla dencal ci pay lu ko yàlla dencal loo xam ne moom la ko nëbb mu doon pay guy sedd xolam mu doon loo xam luy sedd seen xol la mu doon pay goo xam ne yàlla moo leen koy fay ngir li ngeen doon jëf mu ne wan naaru daarul azab safara këru bugal la alati addaha allahu taala lil kafirin lil zalimin lil kaafirina zalimin yàlla nga ko préparel tooñkat yi weddi yàlla fiiha min al azab nekk na fa ci ay mbugal wan nakaal maa laa yaxturu ala baal ak li nga xam ne mooy ak toroxtaange loo xam ni xel mosu ko xalaat yàlla nee na inna atadna lil zalimina naaran ahaata bihim suradiquha préparel nañ tooñkat yi safara soo xam ni day lakk di leen wër wa in yastaxiisu nga xam ne doo mën a rëcc amoo foo daw parce que safara si day lakk di la wër wa in yastaxiisu yuxaasu bi ma in kal muhl yashwi al wujuh suñu demee ba sonn di yuuxu di sàkku ñu xette leen dañ jox ndox moo xam ni ndox mu tàng jër la bu ñu ko naanee wala ñu sotteeku ko mu laal day day fulli seen der deru kanam ya bi sa shoraabu wa saat murtafaqa aleen ak a bon ndox moomu naan ko waaye ku mu nekk loo xam ne moom moo la fay wéttali de lu métti la waxumaa moo jur taanil aan safara ak àjjana am nañ nii ñuy wax nii moment bii lan walan taf na ya abadal abidin te duñ jeex ba mukk parce que dafa am ci nit ñoo xam ni kuréel yi dañ ne àjjana moment bi amul parce que bu ko yàlla bindee nii day mel yàlla day foofu bind ko ba pare nii mu nekk nii te nit ñi nit ñi deewaguñ balaa muy am il faut nit ñi faatu ba pare ba ba dekki yàlla door a defar àjjana ñu dafa mel ni moment bi yow nga tabax sa kër ba pare tëj ko te dëkkoo fa loolu xel nanguwu ko loolu wax ju yàqu la ah kay àjjana am na yonent bi gis na àjjana yàlla wan na ko ko mu gis ni àjjana ba ñi ñàkk ñoo fa ëpp miskin yi yàlla wan na ko safara mu gis ne jigéen ñoo gën a bëri safara ak ak ñi nga xam ne ñooy borom alal yi kon kay safara am na àjjana am na mu ni wa man yumin billahi wa yaamal saalihan yudxilhu jannatin tajri min taxtiha al anhaar yàlla nee na ku jëf-jëf ju baax yàlla ku gëm yàlla jëf-jëf ju baax yàlla dugal ko àjjana yàlla dugal ko àjjana joo xam ni day daw ci suufam ay dex xaalidina fiha abadan mu sax fa ba faw borom bi mu ne qad ahsana allahu lahu risqa yàlla di rafetal jëmale ci moom ci ak wërsëg foofu mu nekk ci àjjana ja inna allaha laana al kafirin yàlla waxaat ne yàlla rëbb na ñu weddi yàlla waadda lahum saira mu ngi leen préparel safara xaalidina fiha dañ fay sax abadan ba faw laa yajiduna waliyan wala nasira duñ am ku leen fay féeteel partenaire wala ku leen fay dimbali yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnaar nga xam ne dañuy dëppër ñi seen kanam ci safara ya yaquluuna yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula ñu naan ak a neexoon di regretté ñu toppoon yàlla ca àdduna toppoon yonantam ba njàngaleem ma ca àdduna wa nashhadu bil jannati li kulli man shahida lahu alkitaab wa sunna bil ayni aw bil wasf dañuy saxal àjjana képp koo xam ni alquran ak sunna dañ koo saxalal àjjana jaar ci turam wala ñu joxe ay melokaan mu ne fi min ash-shahadati bil ayn ñi nga xam ne àjjana daf leen texte daf leen seedeel àjjana jaar ci seen tur bokk na ci li abi bakr wa omar bokk na ci abu bakr omar ousmane ak ali nga xam ne ñooy xulafaa ar-rashidun wa nahwahum mimman ayyanahum an-nabi ak ñu mel ni ñoom nga xam ne yonent bi alayhi salaam tudd na leen ku demee ni Aïcha ku demee ni Khadija ku demee ni Ukkash ibnu Mihsan ku demee ni Saad ibn Abi Waqas ku demee ni Abu Ubayda Amr ibn Jarrah ku demee ni Abdurahman ibn Awf Zubayr ibn al-Awam Saïd ibn Zayd ñooñu ay texte ñëw na wane ne waa àjjana lañ ku demee ni Muaz ibnu Jabal ku demee ni Fatima ku demee ni Al-Hasan ku demee ni Al-Husayn ñu ñëpp ay texte ñoo ñëw jaar ci seen tur ku demee ni Bilal wane ni waa àjjana la kon ñooñu dañ naan waa àjjana la keneen ku dul ñooñu nag nga xam ne amoo texte nga ne diw waa àjjana la da ngay wax lu la neex da nga naan ku ragal yàlla melokaan yi ku gëm yàlla kuy julli kuy woor dina dem àjjana mais dogu ci tur gi nag déedéet wasf bi rek ngay doyloo mu ni wa min achahadat bil wasf bu dee seedeel koo xam ne ci melokaan bi la achahad lu kulli muminin aw taqi dañuy seedeel képp ku ragal yàlla ku gëm yàlla wa nachhadu bin naar dañuy seedeel safara li kulli man shahidahu alkitab wa sunna bil ayn aw bil wasf képp ku alquran wala sunna ne waa safara la jaar ci turam wala mu joxe ay melokaan ne melokaan yii ku ko mel safara nga jëm dañ koy dañ koy gëm mu ne fa min achahadati bil ayn nga xam ne dañoo jaar ci seen tur seede ko achahadatu li abi lahab wala min abu lahab tabbat yada abi lahab wa amr ibni luhay alxuzaayi nga xam ne yonente bi alei sam nee na bokk na ci ñi nga xam ni dañ leen di tàbbal safara ndax moom moo doon jële xërëm yi fële nga xam ne mooy Saam Siri di ko indi Màkka di ko jaay ba ñu wékk ko ci kaaba gi mu ne wa mina shahadaat yi wa naxwi ma ak ñu mel ni ñoom wa mina shahada firawna yàlla wax na ne mi ngi safara wa mina shahadat bokk na ci shahada yi bil wasf ci wàllu melokaan critères yi nga xam ne dañ naan yii critère waaye duñ jaar ci tur a shahadat li kulli kaafir critères yi dem safara bokk na ci képp ku nekk yéeféer aw mushrik wala bokkaale shirkan akbar bokkaale bu mag aw munafiq wala nafiq wa numinu bi bi fitnati l qabr gëm nañ mbugalum bàmmeel wa sualul mayit fi qabrihi mooy laaj nit ki néew bi ci bàmmeelam en rabbihi laaj ko kuy sa boroom nga xam ne nit ñi dañ koy fooye naan mooy yàlla laajee li ma ràbboon alors que firiwul loo ràbboon rabb ci baatu arab la rabb baatu wolof la boole boo bokkuñu ñoom ñaar en rabbihi ci boromam wa diinihi diineem wa nabihi ak yonantam yàlla su boobaa fa yuthabitu llahu lazina amanu bil qawli saabi yàlla dafay dëgëral ñi nga xam ni ñooñu gëm yàlla ci kàddu gu dëgg fil xayaat dunia ci àdduna wa fil axira ak ci àllaxira fa yaqulu mumin ki gëm yàlla di wax ni rabbi allah yàllaay sama boroom wa diine al islam lislaam ay sama diine wa nabiyin muhammad muhammad ay sama yonant mu ne wa ama al kafir wal munafiq yéefir beeg naafiq bi fa yaqul ñoom ñaar li ñuy wax mooy laa adri xaw ma yàlla day day damm làmmiñ wi fàtteloo ko parce que gëmu ko woon du ko mën a wax samitu nas yaquluna shay'an fa qultu man daal damaa déggoon nit ñi di wax rek ma wax wa numin dañuy gëm bi naimil qabri lil mumin li nga xam ne mooy xéewalu bàmmeel ci nga xam dafa gëm yàlla ci biir bàmmeelam dafay xéewlu alladina tatawaffahumul malaayika ñi nga xam ne malaayika yi dañ leen di faat tayibiin ñu nekk ñoo xam ne ñu teey ñu dal yaquluna salaamun aleykum naan leen yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen udxulul janna bima kuntum taamaluun da ngeen dugg àjjana ci lu baax li ngeen doon jëf wa nu'minu bi adabil qabri li zalimin al kafirin dañuy gëm ne bàmmeel am na mbugal ci yéefee rek ku weddi yàlla yàlla mu ne walaw tara id walaw tara id zalimuna fi gamarati l mawt saa boo demoon ba gis tooñkat ya yéeféer ya ñu nekk ci di sukuraat di dee wala malaykatu basitu aydihim malayka di leen talal seen loxo naan leen axriju anfusakum al yawm axriju anfusakum al yawma tujzawna min adabil hoon naan leen génn leen génn leen tey dañ leen di da ngeen leen di ñamal mbugal moo xam ni moom lañ leen di fayee muy mbugal mu doyadi mbugal moo xam ne mu doyadi ci ngeen ci ngeen di ci ngeen di torox bima kuntum taquluna ala allahi gayra alxaq ci li ngeen doon wax ci yàlla te tegu leen ko ci dëgg wa kuntum an ayatihi tastakbiruun ngeen doon nekk ñoo xam ne da ngeen doon rëy rëylu ci ay yàlla yi mu ne wal ahadis fi hada kathira maaluma lii hadis yi ñëw bëri na xam nañ ko fa alal mumin an yumina bi kulli ma jaa bil kitaabi wa sunna kon julit bi day gëm lépp loo xam ne rot na ci alquran ak sunna mu ne min haadi umur ci mbir yi alxayba yi nga xam ne mbiru mbiru kumpa la wa an laa yuaaridaha bu bañ di ko di ko dàq bi ma yushahid yushahadu fi dunia ci li nga xam ne moom ci lay gis ci aduna di ko ci comparé non mbir yi kenn du comparé ak aduna parce que yi mbirum texte la day texte bi wax rek ngay topp fa inna al umura fa inna umura al axira mbiru al axira laa tuqaasu bi umuru dunia kenn du ko qiyaas ci mbiru aduna le zuhur al farq al kabir baynahuma ndax aduna ak alaxira bokkuñu fii aduna la fale alaxira la bu nekk ak ay réalité am la mbiru alaxira du xel mais texte moo la koy wax mbiru aduna yaa ngi koy gisal sa bopp yaa ngi xam di nga mën a comparer teg mais alaxira mënoo comparer parce que loo gisul mënoo ko comparer ak li nga gis fii di teew ñaari bokkut mënoo ko comparer loolu moo tax fii moom yaa ngi gis yaa ngi xam mais ndax da nga gis alaxira gisoo alaxira loo fa xam mooy leen li texte li la ci alquran wax la fay xew lu demee ni balance yeeg jëf yeeg téere yi nit ñuy jot lan nga fa xam li la ci sunna wax mais lu mu la ci waxoon est-ce que xam nga ci dara déedéet su la ci waxutoon doo ci xam kon yow amoo droit di ci comparer bokkuñu ñoom ñaar parce que ñaar ñi bokkuñu réalité parce que fii du vie éternelle dafa jeex nga dem fële fële du jeex fële ñaar rek fa am àjjana ba faw wala safara bànneex ba faw wala mbugal ba faw alors que fii da ngay kontaan léeg-léeg nga mer léeg-léeg nga reetaan léeg-léeg nga jooy kon ñoom ñaar bokkuñu ay réalité mu ne wallahu al mustaan kon loolu mooy li nga xam ne mooy chapitre bi nga xam ni moom lañ jël tey yaakaar naa mu des daanaka benn chapitre boo xam ni buñ jëlee bii ñu jël nii moom lañ ciy teg kon boobu la ñuy song muy chapitre bu jëm ci wàllu ndogal mu ne faslun bunta ngi nii wa nu'minu dañuy gëm bil qadar lépp loo xam ne ndogal la xayrihi lu ci baax wa sharrihi lu ci bon wa taqdirullahi taala lil kainat mooy dogal gi yàlla ji dogal ci liy xew ci li nga xam ne mooy dund gi xasama sabaqa bihi ilmuhu waqtat waqtadatu xikmatuhu selon ni nga xamee ne noonu la ko xam-xam jiitoo ak li nga xam ne loolu la laaj ci xikmaam moom yàlla mu daal di koy def mu ne walil qadar arbau maratib ndogal ñeenti ñeenti catégorie la wala ñeenti degré la bu njëkk bi al ula mooy ilm mooy yàlla lépp lu mu dogal da koo xam ba pare mu ne fa numinu dañuy gëm bi anna allaha taala bi kulli shin alim yàlla xam na lépp xam gu mat sëkk te da caa wéet alima ma kaana yàlla xam na lu nekkoon te da caa wéet wa ma yakunu lu war a nekk te yàlla rek a ci wéet moom rek ko xam wa kayfa yakunu yàlla xam na lu nekk naka la war a nekkee te moom rek ko xam da caa wéet keneen xamu ko bi ilmihi al azali al abadi ci xam-xamam bi nga xam ni mooy xam-xam bi jiitu te yàgg nga xam ne benn xam-xam jiituwu ko fala yatajaddadu lahu ilmun baada jahl yàlla amul xam-xam buy bees ci moom loo xam ne xamu ko woon da koo réere woon wala yalxaquhu nisyan yàlla du ko dab ak fàtte baada ilmin ginnaaw bi mu xamee yàlla du xam di fàtte waat nit mooy xam di fàtte al martaba thaniya ñaareelu degré bi al kitaba mooy yàlla mi xam lépp dafa bind lépp fa nu'minu bi anna allaha taala ñu gëm na sunu borom mu màgg mi te kawe kataba fi lawxil mahfuz bind na ci lawxil mahfuz ah ma huwa kain ila yawm alqiyama lépp lu war a am ba yawm alqiyama yàlla bind na ko fa yàlla moo waxal boppam ci alquran mu ni alam taalam xanaa xamoo anna allaha yaalam ma fi samawati wal ard yàlla xam na mboolem li ci asamaan ak suuf réeréwu ci dara inna fi dalika laf inna fi dalika fi kitab loolu lépp mi ngi ci ab téere inna zalika ala allah yasir te loolu lu yomb yàlla la yow mën na laa jafe waaye lu yomb yàlla la parce que yàlla du nit al martaba salisa ñetteelu degré bi mooy al machia mooy coobare yàlla xam na lépp bind na lépp yàlla lu ko neex mooy am fa numinu bi anna allaha taala qad shaa kulli ma fi samawati ma fi l ard ñu gëm ne suñu borom da koo neex lépp lu ci asamaan ak suuf laa yakunu shay te dara du nekk illa bi machiati te loolu da koo neex ma sha allahu kaan du neex yàlla nekk wa ma lam yasha lam yakun lu ko neexul du nekk almartaba rabia ñeenteelu degré bi mooy bu mujj mu ni alxalqu yàlla mooy ki bind lépp fa numinu dañuy gëm bi anna allaha taala naka yàlla xaaliqu kulli shay yàlla moo bind lépp moo bind lu baax moo bind lu bon wa ala kulli shayin wakil yàlla mooy ki sàmm lépp lahu maqalidu samai wa samawati wal ard suñu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ni li nga xam ne mooy téye li nga xam ne mooy asamaan ak suuf moom yàlla subhanahu wa taala mooy ki yor kattanu asamaan ak suuf mu ne wa hadihi al maratib al arbaa ñeenti degré yi chaamilatun dafa ëmb li ma yakunu min allahi taala nafsi li nga xam ne mooy nekk ci yàlla ci boppam wa li ma yakunu min ibad ak lu ne ci jaam bi fa kullu ma yaqumu bihi al ibad lépp lu jaam yi di taxaw min aqwaalin moo xam seen i wax la aw afaal wala seen i jëf aw turuq wala luñ bàyyi fa hiya maalumatun lillah yàlla mu kawe mi xam na ko maktubatun indoo bind na ko wallahu taala qad shaaha yàlla moom la soob wa xalaqaha moo ko bind li man shaa minkum an yastaqim yàlla ne ku ko neex ci yéen mu jubal ko wa ma tashaauna illa an yashaa allahu rabbul alamin dara du leen soob loolu dafa neex ya fa soob yàlla walaw shaa allahu ma qatala ma qatalu maqtatalu yàlla mu ne su neexoon yàlla ke du ngeen rayante maqtatalu walakin allah yafal ma yurid wala yàlla moo def lu ko soob bàyyi leen ñu rayante mu ne walaw shaa allahu walaw shaa allahu ma faaluhu fa zarhum wa ma yaftaru wa ma yafturun bu neexoon yàlla duñ duñ ko def bu neexoon yàlla nit ñi duñ def lu mu bëggut waaye suñ borom ne na fa zarhum wa ma yaftarun bàyyi leen rek ñuy sos bu neexoon yàlla kenn du ko sosal ku wax lu dul dëgg yàlla éliminer la fi saasi wala mu faat la wala mu doof la feebar wala mu jëlee la fi waaye yàlla moom la neex wallahu xalaqakum wa ma taamaluun yàlla nee na yàlla moo leen bind moo leen sàkk ak li ngeen di jëf yéen yàlla moo ko sàkk maa taamu ko yàlla bind lépp mu ne walakin na naa ànd ak ne gëm nañ yàlla moo bind lépp yàlla moo xam lépp yàlla lu mu dogal mooy li am yàlla lu ko neex mooy li am ànd ak loolu nu'min bi anna allaha taala jaala lil abdi ixtiyaara yàlla dafa bàyyee jaam bi ak tànneef choix choix wa qudra ak kattan bihima ñaar yi mu may ko ko yakunu lil yakunu fi'l nit ki mën a jëf nit ki pour mu jëf foog mu am foog mu tànn foog mu am force bi yàlla da koo bàyyee force bi mu ne ci moom yàlla bàyyee ko choix bi mu ne wa dalil ala anna feelal abdi bi ixtiyaari li wane ne jaam bi li muy def da koy da koy da koy tànn da koy neex su ko bëggee def su ko bëggul mbàyyi mu ne wa qudratihi ak kattan gi dafay nekk arbatu umur ñeenti mbir la al awal bu njëkk bi qawluhu taala waxu borom bi suñu borom dafa wax ni faatu harsakum anna shi'tum ci wàllu sëy mu ne bu ngeen di joteeg seen soxna na ngeen koo dikkee nu mu leen nu ngeen ko bëggee kon nit ki day bëgg nit ki day am coobare wax waxu borom bi walaw araadul xuruja la addu lahu udda ñoom de suñ bëggoon a génn ñoom naafiq yi dem ci fekkee ji xare ba daañ ko waajal ab waaj waaye dañoo bëggul kon nit ki dana dana bëgg fa asbata lil abdi ityaana machiati ida wa idaadan bi iradati mu saxal jaam bi ne day indi ci moom nit ki day indi am na bëgg-bëggam waaye am na préparation day waaj balaa muy def dara nit ki da koy waaj asaani ñaareel bi tawjihul amr wan nahy ilal abd le fait que yàlla digal jaam bi tere ko waaw yow nooy digalee koo xam ne amul choix nooy digalee koo xam ne amul possibilité def wala bàyyi mën ta nekk xam nga yow montre mënoo ko digal ban mënoo ko digal téléphone mënoo ko digal saak mënoo ko digal oto mënoo ko digal moto mënoo ko digal bâtiment mënoo ko digal lan moo tax mooy bâtiment bi amul amul choix amul yëg-yëg amul amul bëgg-bëgg mais nit nag yàlla da koo digal tere ko le fait que yàlla digal ko tere ko rek loolu preuve buy wane ne ni kon moom ah am na xel am na choix am na force mu ne walaw lam yakun lahu ixtiyaar nit ko bu fekkoon amul choix wa qudra ak kattan la kaana tawjihu zalik ilayhi min taklif ma la yutaax kon li ko yàlla di digal day nekk loo xam ne lu mënta nekk la lu mu àttanul wa huwa amrun taabaahu xikmatullahi taala te loolu nag xikma yàlla nangu ko rahmatuhu ak yërmandeem wa xabaruhu sadiq ak xibraam goo xam ak xabaram bi nga xam ne mooy xabar bi nga xam ne bu dëggu la fii qawli taala ci waxu yàlla laa yukallifu llahu nafsa illa wusaha yàlla teg bakkan lu mu mënut su boobaa kon day am contradiction xaalis ñetteel bi madhul muhsin yàlla dafa tagg ko rafetal ala ihsaani ci li mu rafetal wa zamul musi dafa xas ta dafa ŋàññ ki nga xam ne day def lu bon ala isaa ci defam lu bon wa ithabati kullin minhuma ma yastahiq bi ma yastahiq yàlla day fay ci ñoom ñaar kenn ku nekk boo defee lu baax da lay fay lu baax boo defee lu bon mu fay la lu bon walaw anna al fi'la bi yaqa'u bi iradati al abd su fekkoon kon jaam bi jëf ji muy jëf dafay bàyyeekoo ci moom waxtiyaarihi ak li nga xam ne mooy choix bëgg-bëggam la kaana madhul muhsin abasan wa uqubatan wa uqubatul musii zulman kon su boobaa bu fekkoon nit ki li muy def ci li nga xam ne mooy lu baax yàlla tagg ko ci mu def lu bon yàlla sanctionné ko ci bu fekkoon nit ki amul amul sentiment amul choix kon suñu borom da koy tooñ si boobaa wallahu taala munazahun an abas wa zulm yàlla du foodu tooñ arabi ñeenteel bi an allaha taala arsala rusul yàlla dafa yónni ay yonante nag wa bashirin ñi bégalaate munzirin na di xuppaate la laa yakuna lin naasi nit ñi bañ a am ala llah fa yàlla xujja li nga xam ne mooy ak lay xujjatun ak lay baada rusul ginnaaw bi yàlla yónna yonente yi kon wala anna fi alal abdi su fekkoon na jaam bi li muy jëf yaqa'u bi iradatihi wa ixtiyaarihi ma batalat xujja xujjatuhu bi irsali rusul fekkoon na jaam bi li muy jëf wala wala anna fi alal abdi su boobaa kon amu ci choix kon yàlla bu yónni ab yonente yonente bi bu yónnee lan mooy doon rëlam parce que day wax nit ki ba pare nit ki du mën a tànn daxee ba pare nit ki du am force pour def dootul am sens alxames juróomeel bi anna kulla faailin yuxissu annahu yafalu shay képp ku fi def dara fii da nga yëg ne yaa ngi koy def booy lekk da nga yëg ne yaa ngi lekk sooy naan da nga yëg ne yaa ngi naan sooy nelaw da nga yëg ne yaa ngi nelaw sooy wax da nga yëg ne yaa ngi wax amu fi kenn koy wax naan yëguma ne li may wax wala nga nelaw ne yeewu ne yëguma woon damay nelaw xam nga ne absenté nga benn moment tëddoon nga booy lekk yëg nga ne yaa ngi lekk amul kuy lekk ba pare ñu ne ko lekk nga mu ne non man est ce que lekk naa yëguma ko de wala nga naan ba pare ñu ne sawaay li nga doon naan nu mel nga ne man est ce que naan naa yëguma ne naan naa de dafa sedd wala dafa tàng non est ce que naan naa déedéet amul ku koy def te yëgoo ko ah aw yatrukuhu bidun bidun ay shuur bi ikrah amul kenn koo xam ne di nga bàyyi dara te bi nga koy bàyyi nga yëg ne dafa am lu la forcé da nga yëg ne yaa def choix bàyyi ko foo yaquumu wa yaqud yaa ngi toog yaa ngi jóg yaa ngi toog wa yadxulu wa yaxruj yaa ngi dugg ko génn wa yusaafir wa yuqiim yaa ngi tukkee ko ñëw bi mahdi iradatihi wala yashur ah ba pare loolu lépp yëgoo ko amul benn yëg-yëg bi anna ahadan yukrihu ala zalik yëgoo ne kenn daf lay forcé bal yufarriqu tafriqan waaqaan bayna an yafala shay bi ixtiyaar wa an yukrahu alayhi mukrih li ngay def yow te yaa ko def yaa ko yaa def choix def ko da ngay yëg ne dama ko def ci sama choix mais li ñu la forcé da ngay yëg ne dañ ma cee forcé ñaari bokkut nit bu la forcé woon léegi nga dañ maa forcé bu la forcé woon lekk nga ne man maa ngi lekk de waaye diwuma forcé ah mais soo doon lekk te kenn forcé wu la est ce que da nga naan dañ maa forcé da nga naan non man maa jël jël choix lekk kon nit ki xam na buñ ko forcé buñ ko forcé wul mu ne wa kazalika farraqa charu naka noonu charia noonu la différencier baynahuma ci ñoom ñaar tafriqan xakiman différence boo xam ne bu ànd ak sagesse la bu ànd ak xikma bu ànd ak sagesse ak xikma mu ni falam yu axis al fail bi ma faalahu makruhan alay moo tax charia nit ki lu ñu ko forcé mu def ko bu ñu la forcé ne la saagaal yonent bi nii nga saaga ko charia day xam dañ la cee forcé du la ci jox àtte bu lay bu lay sanctionné carrément fi ma yataallaq bi xaqillahi taala lépp ak lépp lu aju ci àqu yàlla mu ne wanara dañuy gis ne an annahu la xujjata lil aasi kii mooy yàlla amul benn benn preuve benn lay ala maasiyatihi bi qadrillahi taala ne day mooy yàlla parce que yàlla moo dogal mooy yàlla kooku amu ci benn preuve déedéet loolu doxut mooy anna al aasi yuqdimu ala al maasiya parce que kii mooy yàlla day ñëw di def ci day def ci mooy yàlla gi bi ixtiyaarihi te moo ko tànn min gayri an yaalama anna allaha taala qaddaraha alayhi saa mu xam ne yàlla dogal lii ci man laa yaalamu ahadun qadara allahi taala illa baada wuqui maqdurihi kenn ku ci nit kuy jëf xamoo lu yàlla dogal avant ngay jëf boo jëfee ba pare ci kay door a xam lu yàlla dogal ci yow wala déet aha kay borom ne maa tadri nafsum maa taksi bu xada amul benn bakkan bu xam lu koy dal suba lan lay fàggu suba lan lay def suba fa kayfa yusbihu ihtijaaj bu xujjati laa yaalamu al muhtaju biha kon naka ngay mën a layee ci loo xam ne xamagoo di nga ko def wala doo ko def mënta nekk ala iqdaamihi ala ma atazara biha anhu waqad abtala allahu taala haadihi hujja kon yàlla dafa yàlla ci boppam moo neenal lay googu borom bi nee na sa yaqulu alladina ashraku di ngis nga ñi bokkaale yàlla dañuy naan law shaa allahu ma ashrak naa waaw yàlla moom la neex su neexoon yàlla ñun duñ bokkaale waay wala abauna bu neexoon yàlla suñuy bàyyi ak suñu maam yi duñ bokkaale wala xaram naa min shay wala sax dara di araam ci ñun ñuy araamal dara kazalika kadaba alladina min qablihim yàlla nee nañ gis ngeen ñi leen jiitu woon lii la ñu waxoon ba weddi yàlla hatta zaaqu basana bañ ñam suñu mbugal ya qul hal indakum min ilmin fa tuxrijuhu lana ndax am ngeen xam-xam ci li ngeen wax ni ngeen génneel ñu ko in tattabiuna illa dhann yéen seen yaakaar rek ngeen di topp ak ay njort wa in antum illa taxrusuun nekku ne lu dul ñoo xam da ngeen di làmbatu wa taqulu lil aasi l muhtaj bil qadr dañuy wax kii mooy yàlla di layee ay ndogal limaasa lam tuqdim ala taa muqaddiran an allaha taala qad katabaha lak waaw lu tax jéemoo def lu baax nga ne ah yàlla moo dogal ma def ko tamit waaye yow lu bon rek ngay def naan yàlla dogal ma def ko fa innahu la farqa baynaha wa bayna al maasiya ñaar yi amul différence jëf lu baax ak mooy yàlla ci wàllu côté ndogal dangaa comme dangaa bëgg ne lépp lu bon loo def yàllaa ko dogal waaw del def lu baax te naan yàllaa ko dogal tamit kon fil jahli bil maqdur ci réere dogal gi qabla suduril fiil ñoom ñaar ñoo yem ci nga réere leen avant ngay xam luy xew ak lu xewal min ko ci yow wa li hada loolu moo tax lamma axbara nabi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yonente bi mu xibaaree sahaaba yi bi anna kullu waahidin qad kutiba maqadahu min al jannati wa maqadahu min an naar kenn ku nekk ci nit ñi bindal nañ ko palaasam safara ak àjjana lan moo xew foofu bi mu ko waxee saxaaba yi moom yonente bi alayhi salatu wasalaam lan moo xew qaalu afala nattakil ñu ne ko kon kay nañ bàyyeeku gis nga mu corrigé leen wana daal amal ñu bàyyi liggéey qaala yàlla bindal na la sa place àjjana ak safara nga ne kon bàyyil ma bàyyeeku yonente bi wax ne laa déedéet i amalu jëf leen fa kulun mu yassarun lima xuliqa la kenn ku nekk yàlla dina ko yombalal ca fam ko bind yàlla dina ko yombalal fa la nga xam ne fa lañ fa lañ ko bind wa naqu lil aasil muhtaj bil qadar dañuy wax ba tey ki nga xam ne dafay làqatoo ndogal law kunta turidu safar li makka soo bëggoon a tukki dem màkk wa kaana laha tariqaan ña màkk ñaar yoon la am axbaraka sadiq anna ahadahuma mu xayf waa ji ne la benn ci yoon bi dafa nekk yoon bu ñàng saab yoon bu difficile wa saani deuxième yoon bi amin dafa am sécurité ashal sahlun dafa yomb fa in nekk sas lu ko saani ndax yow deuxième bi ngay jël wala mu ko an tas lu ko al awal doo mën a jël bu njëkk bi wa taqul innahu muqaddarun alayya nga naan dañ dañ loolu la yaa dogal walaw faala addaka naasu fi qismil majanin soo ko defoon ni ñu jàppale ko def moo tax doo ko nangu wa naqulu lahu aydan mu ne dañ koy wax ba tey la warida alayka wazifataani yow suñ ñëwoon ne la ñaari ñaari liggéey nga nii ñaari fonction ihdahuma zaatu ma murattab aksar bii moo gën a bëri duñ ciy fay fa inna ko sa fa taamal fiha duna naaqisa kon ci boobu ngay jël doo jël beneen bi nga xam ni wax dëgg yàlla moo gën a néew salaire fa kayfa taxtaaru nafsak fi amalil axira maa hu adna summa taxtaju bil qadar léegi yow nga bëgg a sukkandiku mbiru alaxira ngay tànn li gën a bon ba pare di ci lay te bu dee aduna ngay tànn li gën a baax bi dee bee nga tànn li gën a bon noonu yàllaa ko dogal fii doo tànnil bi gën a baax bu doon doone yàllaa ko dogal wa naqulaxa dañ ko wax ne ko naraaka isa usifta maradin jismi dañ lay gis saa boo feebaree feebaru yaram taraxta baaba kuli tabibin da ngay dem di fëgg buntu docteur yi li ilaaji ko pour ñu faj la wa sabarta da ngay muñ ala ma yanaalu ko lu lay dal min alamin ci ay métit amaliya aljirahiya ci wàllu opération wa ala mararati dawa ak garab gi lu mu wex-wex da nga koy naan di muñ fa li ma dal tafal misla dalik fi maradi qalbika bil maasi lu tax lu def loolu ci li nga xam mooy sa feebaru xol tamit jéem ko muñ jéem a xeex sa bakkan wa nu'min dañuy gëm bi anna chara naka lu bon laa yunsabu ila allahi taala duñ ko askanale yàlla li kamaali rahmatihi ngir yërmandeem gu mat wa xikmatihi ak xarañam gu mat mooy sagesse am goo xam ne gu mat la qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam wax ni wa charu laysa ilayka lu bon jógewul ci yow yàlla rawaahu muslim mu ne fa nafsu qadaa illahi taala lépp lu yàlla dogal moom yàlla des fii char abadan amul lu bon yàlla du dogal lu bon donte ano saadi rahmati wa xikmatihi ndaxte loolu dafa nekk loo xam dafay jóge ci yërmaaneem ak mbaaxam mën ngaa jàpp ne rek yow lu bon la moo tax borom xam wax ne yàlla dëgg la ci dogalam yi mën nañ ci gis dogal loo xam dañuy jàpp ne lu bon la donte ay jëfam lépp lu baax la dama yakunu charu fi maqdiyaatihi du jëmmi dogal gi moo bon waaye ci lim koo dogal la du yàlla moom lam dogal waaye ci mbir mim dogal la mu ne maa hada fa inna charra fi lmaqdiyaati lay charran xaalisan même mbir jëmmi mbir miñ dogal lu bon loola ci boppam même boo jàppee ne lu bon 100 pour cent la am na lu baax lu ci nekk moo tax mu ne bal huwa charun fi mahallihi min waj day bon ci côté wa xayrun min waj baax ci côté huwa charun fi mahallihi wa xayrun fi mahalli axar mën naa bon ci place bi baax ci beneen place mu ne fal fasaadu min al ard par exemple yàqute gi am ci suuf minal jat bi ci li nga xam ne mooy maral sécheresse bi am wala marat feebar yi wal faqri pauvreté bi am wal xawfi wal xawf ak ak insécurité bi mu ne char loolu dafa bon na lépp lu bon la laakin dafa xayr mais nag baax na fii mahalli axar ci beneen place qaala taala yàlla moo ne zahara al fasaadu fi l barri wal bahr mbonte gi feeñ na ci jaww ji géer ji bi maa kasabat ay ginnaas ci li nga xam ne nit ñi ñoo ko liggéey seen loxo lidiqahum baada alladi amilu pour yàlla ñamal leen ci lenn li nga xam ne ñu ngi koy jëf te baaxul laallahum yarjiun pour ñu delluwaat ci yàlla mu ne waqat u yadu saariq dagg loxo sàcc wa rajmi zani daa di rey ku ku njaalo mu ne charun bi nisbati li saariq dafa bon ci njaalokat bi wa zani ak sàcc bi fii qat i yadi ci sa dagg loxoom wa ishaaqi nafs ak rey bakkan lakinahu xayrun lahuma min wajhin axar waaye loolu de moo gën ci ñoom ci benn côté xaysa yakunu kafaratu lahuma parce que day raxas seen i bàkkaar fala yajmau lahuma bayna uqubati uqubati uqubatay dunia wal axira duñ leen buggal ci aduna ci mbàkkaar boobu di leen ko buggalaat ci àllaaxira buñ ko tuubay fii ci atte sharia yooyu mooy dagg loxo bi wala ñu rey ko su ko defee moom àllaaxira bàkkaar boobu duñ ko ko attewaat wa aydan fi xayrun moo gën fi mahallin axar ci beneen place xaysu inna fihi himayatul amwal mais sàcc bi buñ daggee loxoom baaxul ci moom mais baax na ci borom alal bi mu sàccoon day protéger alalam wal arad ak ki nga xam ne mooy ki tuumaaloon nit ci deram ñu daal di daj ci moom daan ci charia caw ko ay yar moom bon na ci moom mais baax na ci ki nga xam ne moom moom lañ yàqoon deram wala ansaab ak li nga xam ne mooy ki njaalo ba doom juduti moom ñu daal di koy rey baaxul ci moom ci liñ jàpp waaye baax na ci société bi baax na ci ki nga xam ni mooy ku jigéen ki nga xam ne amaana moom lañ njaaloon moo xam ànd na ci wala àndu ci doom ji ci juddu ba nga xam ne moom dootul mën a njaalowaat ak ku jigéen ko mais du nekkaat ci société bi di nekk koo xam dafay njaalo kon incha allahu taala foofu la ñuy taxaw mu des chapitre boo xam ne suñ ñëwee ci la ñuy jeexalee bunt bi benn mooy bi des incha allah ko dañ koy bàyyi ba ci beneen daje ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq te defal leen ko wa axiru daawaana an alhamdulillah wa sallallahu wa sallam baraka ala abdihi wa rasulih nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh